bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi wa tamkin bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant jiital ci nuyoo bi sëriñ Sidi Muxtaar ñaan yàlla yàggal ko fi lool di nuyu sëriñ Seex mu sëñ Saalim nekk ci bopp ka suñ Saalim moom itam ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool di nuyu mbooleem kilifa yi ñu fekk ci kër gi njabootu sëñ Tuubaa di nuyu daayira bi te sëriñ Abdou Ndiaye nekk ci bopp ak yéen ñi nga xam ne yéen ànd ak moom ñu sëñ Mamoune Bousso sëñ Jaañ ak mbokki taalibe yëpp ñu ngi leen di nuyu ak ñu nekkoon ci daara bi ñëpp ak wëllëre yi nga xam ne ñëw nañ ànd ak yéen ngir yàlla ak sëriñ Saliou Mbacké ñoo ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci taxawaay bi su ko defee xanaa duñ def lu dul rafetlu rek lii muy jataay bi jataay bu am solo jataayu sant sant yàlla ci ay xéewalam sant yi nga xam ne moom la yàlla jaareel xéewal gi ci moom mooy sëriñ Saliou loolu nag bis la kon boo xam ne ñëpp a ko bokk ndax njariñam moom sëriñ Saliou dafa matale ñëpp kenn ku nekk bi shaklin mubashir aw xeyri mubashir jëriñ na moo xam mbokk la moo xam jege ñaale la moo xam taal ku maa doon rek am na njëriñ bi ñëw ci yow mu jaare feneen ñëw ci yow loolu yaakaar naa waa bâche bi yëpp mën nañ ko kon loolee sëriñ Mbay Jaxate waxoon sëriñ Tuubaa ni ko defar nga say bokk defar aw jàmbur ba ñëpp jag nga jàpp na sa njàmbur loolu dëgg na ci seen sëriñ bi muy sëriñ Saalim loolee kat ba waxoon nañ Mor Talla Jaay sëñ Abdoulaat kum jamonool defal na la boo ko xamee boo ko xamul defal na la loolu am na ci sëñ Saalim kon bokk ci liggéeyam li mu li mu def muy ab liggéeyam nekk fi di sax ba àddunay tukki te liggéey bu mel noonu ci nit rek la mën a jaar moo tax muy ñaan yàlla ne ko fii ka fii ka fa defal sama sax ci jeex tàkk ci waaye nga mottali li man ay jëmm mottaliwaat ci man ay jëmm ay jëmm ba ba ila axiri maanaam di def tërbiye di àggale ci yàlla par ay groupe par ay groupe loolu euh, colonialiste yi waxoon ci sëñ bi ne dafa bëgg wut ay Ahmad Bamba yu bare bare yu bare ci réew loolu mooy doxinu sëriñ ku mu defar nga dem defar keneen kooku defar keneen ko defar keneen loolu yaakaar naa gis nañ ko ci liggéeyu Serigne Saliou kenn ku ne ci yéen yaa ngi jaxalaat ñeneen ñoo xam ne xaj na jamono loolu ak sëñ bi wala gisuñu ko mel na ni loolu kon ay at ci kanam la ab liggéeyam di gën a feeñ ndax ay jafal lu ñu jafal la rek mu tàmbalee tàkk bala ñoo xam liggéey dañoo dem ba ci kanam ba ñi tàmbalee tàkk tàkk jër ñi tàkk jër jafal ñeneen ba baddaay bi daj foofu lañuy ñuy xamee dëgg-dëgg yi la mu doon liggéey fi ñu toll rek yaakaar naa dem ci am réew te gisoo fa daay ref sëñ wuyu man dem naa réew yu bari ci àdduna bi waaye foo wàcc kenn dana ñëw nuyu la ne man daara nangam la nekkoon loolu yaatub liggéey la boo xam ne mu ngi law génn na réew mi fi ne dem na bitim réew waaye day gën law di law rek kenn ku ne ci ñun kon loolu xamal na ko boppam mu mel ni nag kon ndaje mi dañuy jëmale wax ji rek ci fàttaliku fàttaliku daara ja ak li ñu jële ca daara ja nag dañ koy sàkk ndax waxtaane jëmi siñ saali moom yaakaar naa ñëpp dund ngeen ko gis ngeen ko wax na ngeen léegi bi mu fi bàyyi ko itam ñu bari def nañ ci ay waxtaan ba ñu ko fekkiwul sax mel na ni xa gis nañ ko dundal dund nañu moom kon loolu daanaka jërul nekk di guddalati waaye xanaa fàttaliku fàttaliku donc daara ak morom daara janam nañ ci nekke waaye bañ fa nekkee ba jóge fa nag la fa jële nu ñu koy téye nu ñu koy sàmme ba nga xam ne danañu ci jariñ suñuy mbokk suñuy xarit ñëpp jariñ ci kenn ku ne ci yéen yaakaar naa ne bis yi nga def ci daara marqué na la loolu ndax day loo xam ne lu am solo ci dund la ndax jamono la boo xam ne jamono bu jafe la boo xam ne euh, ku mu rëcc maanaam man nga am leneen waaye loola du yomb delloo si ñi nga xam ne ñi fekk xare Badar buñ ko ña ko fekkewul te donte am nañ tiyaaba itam waaye xare Badar ab tabaxa la lii itam kon jamono la boo xam ne jamono bu bu neex la woon ci ruu waaye jamono bu metti woon ci bakkan yaakaar naa kenn ku ne ci yéen doo tëdd ñeent fukki fan wala weer te géntoo nekk xel ko loolu li muy tekki rek mooy wala daara ja nga nekkoon loola marqué gum sa jëm ci jamono loolu nag kon jamono la woon boo xam ne ma ko waxee jamono bu bu neex la ci boo koy fàttaliku ci ruux waaye jamono bu metti ci bakkan ndax tërbiya mënta neex tërbiya dindi ay ay yu nekk ci bakkan la yoo xam ne da koy dindi ci nit ki ba mu set nga yéegal ko muy tarxiya yéegal ko ci yàlla dindi googu nag bi nga mel ni ku yor ay góom nga di ko raxas du mën a neex moom ko moo tax bu ñuy fàttaliku xel koom di fàttaliku xiif boo xam ne daana fa am te loolu di njiit laayu suuf yi di njiit laayu nit ku baax bokk ci ponk yi nga xam ne ponk yi tasawuf sumtun wa juróom ndaw yu baax daw sahlu li ndaw ku ndaay gën a ragal boo demee foofa dafa jàppandi woon lool moo tax léeg nga gis murit bu ñu engagé wax waxu pëstéefam te day toog tërbiyewu xam ngeen ci dara waaye bu toogee tuuti du laax bi xaw ko jàpp rek mu daal di mel ni joxe ngànt wane ne ne sama waajur daa doon mag wala nangam nangam dànkal gis nañ ko lu bari ci daara yi ku jaar ci kër sëñ Saliou yaakaar naa li ñuy wax jël watiir jël watiir xam na jël watiir añ bi six heures daan añ waaye da ngay gis kilifa bu togg bu yàgg rek bu jekki-jekki dem këram ñëwaat bu ñëwee sëñ bi ne ko ah, xanaa da jëloon watiir waaye moom añ yi ñëwaat loolu ku ne xam na ko la ñuy wax cin lu mag la ak cin lu ndaw waaw sa gars yi xam nañ am na gone ndaw boo ne daan ñëw di waxtaan ak man waaye bu ñuy añ nag day ñëw di añ ci mag ñu di ko yedd nag mu ne man daal ndabal paay yi kenn mënu maa taqale ak moom naa léegi dégg naa sax maa ngi koy laaj ñu ne ma léegi am na soxna boobu xale bu tuuti la am quatre-vingt-treize nga xam ne booba euh, man bu may doxant ci waañ yi ba waañ yi damay dumóoyu ndax mbana yi ay peel lañ ko daan yëgale ay sombi lañ daan togg boobu benn waaye nag jaar fa ñuy xam naa jëm ci dëkk yooyu ci wet bi reer bi agsee ñu jox ko sombi bi mu reer bi mu xëyee te moom ci guddi gi bi muy agsee dana daa bëgg a ba ngoon ndax foofa xaw wax ñu wax waaye bi mu xëyee ñu wax wax mu ne day dem ñu xam naa itte yi bari na bari waaye boo xam ne euh, muñ coono yooyu moo la ko tey kon ndaw ñi doog jóg nañ jàngee ci loolu xam ne lu neex bu jekki-jekki rek dikk waaye li ñu bala ne bala ne balaa neex ne nux nux loolu ku ne xam na ko kër bi jékki-jékki bu rek neex mbett yow moo tax nee na mbokk bi ma dem këram muy waxtaan ak beneen xaritam di ko wax li ko li ko sëñ Saliou wax daal lim ko sant gi mu ko sant ak ak yim ko dig ci yoo xam ne ñu ko cee rafetloo ñoom waa ah, loolu de ci biir mu ne ko ah, déet du noonu di oh, <laughs> wut loo xam ne dana mën a dékku bett bu ko defee doo ko diir mën a kon loolu lu am solo loo xam ne lu mat a bàyyi xel la ci ndaw yéen ñi si jaar ba jàll xam ngeen waaye génération bii ñëw ñu xam loolu ba mbooloo ñuy toog ñu ne ñi ci gën a bari soow ne xam naa ne ñi ci gën a lakk gerte mbaxal xam naa ne ñu ci dàq na tàngal kafe xam naa ne te booba xiif bu metti bi rek ba mbëtt sax am na ci ñoo xam ne dañ ma ko daan toggal si fa gis ñu togg mbëtt yi ñu ne waaw mbëtt bu ñu koy lekk waaye ca ginnaaw suba gi rek ma gis mu ne luñ ci bóoli mbëtt rek jàmbaare ca loolu maa ngi fàttaliku sama benn rakk Murtada Kebe mu ngi nekkoon ñaaru boobu ma di ko tooñ ku am looy defar loo ci seeti tala ku man soos la man maa man ceebu jën amul kenn ci tàngal kafe daara ji baxal gerte wax nañ ne moom moo ca man <laughs> su toggee dëfin xulta lim saalimi su toggee ñalan xulta zaalim lagan <laughs> su dee yor nga xëntug rajo jox ko mur tadaa man na orlo si xam ne mooy boobu damay wax rek nii nii seen xel yi nàcc nga xam ne lu ne yàlla day mel leen ci moom moom mu maa koy fàttali benn bis mu ñëw ne ma am koo xam ne kat daf ma toll ma ne lu ngeen jotee mu ne ma dafa am sama sama ginaar bu nenkee mu jël nen yi ma ne ko wax nag ma jaay naqar deret ma bëgg nag néeg bi tuma ko te moom ma waaye ñoo toll ne ma te nga ñaanal ma nag ma bañ koo gaañ ma ne ko ah waaw xam naa xanaa ma ñaanal nga bañ koo gaañ waaye tam bañ naa gaañ yow itam waaw ma ñaanal la nga bañ koo gaañ waaye ma ñaanal la mu bañ laa gaañ waaw waaye mu yàgg waaw mu daal di dem mu bàcc bursu ko xorom moom la mu ñëw ne ma ah sol na tenue de combat de waaye man loolu ñu toog ba yaakaar ne ñëw ne ma waa bind na leetar sax jéggul <laughs> alhamdulilah waaw jéggul nawet fa xel moo gën foofu nawet Amérique ngir gerte gi ak sëb ñi ak mbool ma ak yeneen yooya yooya xam naa sëñ Maamu Buso boo demee xam naa ci ñi ko doon def bokk mbuusu mbuusu yi sax moom gis nga li ñu daan sol xalil yi xal xal xal surta ngir dum sëriñ buusu la neex lool te ànd ak féex ba fer mel ni Tokyo loolu defe naa mbokk buusu ba moo ko noonu ci gerte ak mbaxal ak meew mu jar am mu am jar nga fay ndoko te xam la loolu moom moo ko doon wax naa ko sant buusu bu mel ne loolu nga bis tànk day far mel day far mel ne yaa ngi ca Tokyo ci lay intervenir maanaam wan la ak maanaam ginaaw ci loolu la koy defee kon rawatina bu demee ba wane ginnaaw loolu kon bu leen sàkkari ci la mu gën moo ko fi nekkal ba léegi ida azana annaadi yaqumu jamiuhum li masjidihim baada al wudui mushaata soo déggee ak noo du ñoom ñëpp dañuy jàpp ba set dem ci jàkka ji di julli isa ma raaw sayaarata cheikhi asrahu ilayha tarahum xiina xalla jusaata bootu sëñ bi accès da ngay gis ñoom ñëpp ñu daw wër ko ndax niñ ko damme bu wàccee rek gis ñoom ñëpp ñu àgg suuf toog wa hammuhum naylu rida min zahimihim wa laysu ila kasbil fuluti soxaat noonu nga leen di gis ñoom seen it ñoom ñëpp mooy am ngërëmul seen kilifa googu te bu ñu ko amee mooy ngërëmul yàlla te amuñu soxla ci ay wuti koppar ci foofu ñu nekk ndax jaay nañ seen àdduna jënde ko seen alaaxira moo tax loolu lépp mu ñu soxla isa jaahum dayfun ahaddu lahu alqira wa in kaana majhulan aban musumata bu gan dikkee ñu teral ko donte xamuñu turam wala turu baayam sax teewul dañ koy gàttandu teral ko ndax loolu mooy njàngaleem sëriñ bi noonu la ko jàngale ci nax ñu xadaay xaaj iza zurtahum waqta duha fi buyutihim tajid xawlahum aqlaamuhum wa dawaata boo ñëwee ci waxtu yoor yoor ci daara ji nga fekk jàngalekat yi toog seeni xalima wër leen iza zurtahum ba'da salaati li asrihim tajidhum taalifal ulumi tulaata bu fekkee waxtu taksaan nga ñëw ci daara ji yaa ngi leen di fekk ñuy tëral téere xam-xam yi ñu jàpp iza zurtahum fi leyli tulfi sigaaruhum qasaidu cheikhi munshidina sudata su fekkee waxtu guddi nga ñëw ci daara ji yaa ngi fekk xale yi ak mag ñi def ay kuréel di jàng xasida di jooru di yëkkati ca kaw isa zurtahum waqtal xariif yi tajid humu ilal xaqli turran deful lu ñu man toppal ngërëm yow sa giiru dund sante koko ko loolu foofu la ñuy tàmbalee ci bi nañu fexe ba suñuy jëmm di fàttali sëriñ Saliou ci jëflante ak jikko nga xam ne koo ci jaxasool ci ñi nga xam ne nekkuñu woon ak ñoom te miin ko danañ xam ne yow mii moo la moo la yar loolu lu am solo la wa yuskirul mawla iza raahu bu ko defee ñu fexe ba mel ni saakub dugub saakub dugub foo ko teg bu tawee faaw da gis ay lu fa sax maanaam day dafa dafa ruus day sax maanaam ñu fexe ba fu ñu dem maanaam saxal fa njëmbatum sëñ bi créé fa ay Ahmadou Bamba ak i sëñ Saliou noonu ko tubaab bi waxe woon nee dafa bëgg créé Ahmadou Bamba yu bare bare bare loolu nag ni ñu koy defee mooy ni ñu war a mel bu ñu nu melee kenn ku nekk la ñuy ci yow yow doo ko wax waaye ñoom ñoo koy gis xemmem la bëgg la ñu mel ni ab gël ab gël dóom dóom da ngay gis ñëw taalaat matt ci kaw te nam moo tax mënuñoo taqale boo génnoon gis ay xale fii jox leen ñaari junni ne leen yéen ko bokk bala ñu taqalikoo dañu dañu toj ñaari junni ba séddoo noonu la mbir mi demee bu ko defee ñu rafet njort ci xam ne loolu sëriñ Tuubaa ne talabta rasulullahi li fawqa matlabi min allahi rabbi wa raja lam yu gayya bi loolu ku di mët dugg nga ci biir wax ne yàlla yow yonent bi wutal nga ma fa yàlla loo xam ne la ma la waxoon sax ëpp na ko moo tax sama yaakaar tësam loolu ku di murit rafet njort ne yaa ngi ci biir ndax moom sëñ bi daf daan wax ne sama yaa mutakallim yi mooy li may wax naan yàlla nangam na ma loolu bu leen defee ne ci man la yem waaye ku aju ci man aju bu wér yaa ci biir loolu moo tax kon loolu bàyyi ko xel baax xam ne sàmba man kanam man ginnaaw li ñuy wax sàmba du man kanam man ginnaaw sàmba mi bokk ci waaw sàmba bu man kanam la man ginnaaw xanaa kon sàmba meneen mu sant ndaw la mu sant naa nga waaye sàmba mii moom sàmba mbàkke mii moom nag kanamam man ginnaaw la kon ñu njot bu baax te bañ doyloo nekk gi ñu nekk nag moom waaye ñu jàppe loolu rek aw sas ndax buñ ne sëñ Saaliw wala yar kooku sas nañ la ñëpp li ñu xool ci yow léegi ne di xanaa ko yow yaa fi jëmmal sëñ Saaliw ñu melal ko nga war a mel mu tax loolu wax tax na ñu war a góorgóor góorgóorlu bu baax te bañ koo bañ koo doyloo ndax sëñ